waxuñu dara ñuy jaay ay ruube naan suñu manifestation bi ñu prévoir woon le 15 arrêté nañ ko président Macky Sall ñëw doole ci kàr mi kalaw ni finalement sama tournée bi ma bëggoon def Casamance bàyyi naa ko dafa ñemewul dem Casamance c'est aussi simple que ça et on va qu'il le veuille ou pas faire notre manifestation du 17 Yewwi Askan Wi va participer avec sa liste nationale sinon il n'y aura pas d'élection dans ce pays ce même jour à Ziguinchor y aura également une marche bis boobu tamit Ziguinchor dina am marche le 17 parce que bi yoon au lieu d'un point deux points lay doon et ça va aller crescendo day gën a yëg ci point yi nga xam ni moom la ñu def au niveau du Sénégal donc 17 bi dina am rassemblement fii ci place de l'Obélisque am marche fële nga xam ni moom mooy Ziguinchor. dañ ma génneel benn. bulletin benn spécimen nga xam ni en principe dañ ni loolu mooy doon après bulletin wi yeewi bi ñu ko tegee turu suppléant yi ñoo nekk ci bulletin yi yeewi askan wi ñu def ko amul photo tête de liste amul turu tête de yi nga xam ni tey loi bi ci article R58 da ko prévoir identifiant yooyu benn identifiant nekku ci donc ngeen gis décision conseil constitutionnel ni mu tordre la loi électorale ni mu tordre lu code électoral nga xam ni donc ñooñu bi ñuy jël décision ils n'ont même pas profondément réfléchi pour gis ni ñoo ngi doon jëm ci impasse ñoo ngi doon jëm ci ñombe parce que ñombe weesuwul nga ni huit listes yi nga xam ni ñoo war a dem sept yi daanu am tête de liste benn moo ci dul am tête de moo ci dul am identifiant moo ci dul am photo wu tête de liste Askan Wi fera face veille élection locale yi Macky Sall a ngi pré-campagne ngi ci ay tournée économique ay inauguration ak ay yu kenn xamul yéen ñëpp a ko fekkee alors pourquoi cette fois-ci cette nouveauté ba gouverneur naan day génne communiqué pour reprendre communiqué la donc ngeen xam que danoo nekk ci entreprise une entreprise qui ne passera pas